wàllum actualité bokk na ci li ci gën a fës maanaam euh, lakk-lakk yi tar yi nga xamante ne am na fii ci Sénégal rawatina fii ci Ndakaaru euh, liñ koy gën liñ ciy gën a ñaawlu askan bi lim ciy gën a ñaawlu bokk na ci li nga xamante ne moo di yéexaayu waayu waa sapeur pompier yi wala sax seen ñàkk kaaraange ngeen ñëw ba fay lakk yooyu noonu ba sax ay musiba di ci am en tant que citoyen sénégalais nako ngeur ko ban commentaire nga ci am. <laughs> waaw commentaire bu ma ci am rek moy metut métitlu bu baax a baax ba ci kanamu euh ñak katan gi nga xam suñu sapeur pompier ñak nañ ko euh ay gaay ay nit ngi ni ño bëss bu ne wër wu ne ñu fay leen ab salaire ñu ñu ñu am lo xam ñun suñu ñak la ñun doomu de len ko jox ndax nu ar nu ndax buñ len soxla soxlaa buñ soxlaa wóolu mën leen a ñu daw ci waye ay wayangi yo xamne ñom la dul xawma sax ndax dinañ genn daw daw yi dem entraînement parce que gëj bir biir euh masuma tassé ak ay sapeur pompier yu xey def entraînement comme lélé léeg militaire yi defee daw footing pour nek en forme. mona amna dé non waxuma amut dama ka musta gis waaw donc ñooñu euh tay ma doon sen chef d'état major. damay démissionner parce que man pour man euh, kenn du ma fay may lekk alal joo xam ne liggéeyuma ko sapeur pompier seen devoir mooy lan bu làkk amee wala bu ñu jaaxlee bu ñu tiitee ñu woo leen ñu ñu taxawuñu bu fekkee ne nit ñooñu boo leen woowee doo leen jot kon musiba am na bu fekkee ne ñooñu boo leen woowee bu ñu mënee bu ñu ñëwee dañ la amuñu oto bu ñu ñëwee musiba am na bu fekkee ne ñooñu bu ñu ñëwee. dañuy ñëw taxaw comme yow di xoole musiba am na ñetti laaj yi la sapeur pompier Sénégal wone bi may fàttaliku yu gën a jege mooy bi nga xam ne moo amoon euh, ca daaka bi ñoo taxawal ay camion yoo xam ne ba làkk bi commencé nañ xam ne ndox amu ci ma indi bu bu bu bu bu daaka bi xamatuma ñaata nit nit ci de parce que dama kaa fàtte gannaaw daaka bi nga xam ne moo indee njombe bu bare ka ca topp mooy waa kër Ousseynou Diaz ay keroog ay juróomi doomam das ca safara bi ki njëkk a yegg si mu ni bu ma yeggsee ma fekk safara bi tàkk dama woo pompier yi lu mat waxtu wala li ko moy tuuti kenn jëlul téléphone bi ba Papis Diaz nee na moom moo daw dem ba ca caserne bi pourtant caserne bi fi mu toll ak ñom seen kër matul juroomi téméré mètre mu dem wax leen pour ñu ñoo ñu fay lak bi mais buñ fa ñëwee lan lañ fekk ay néew lañu génné bé ci top barki démb la am xalé ba naan Alpha ci parcel asini. lu mat wéri nit nee nañu woote nañu téléphone kenn jëluñu lu mat fukk ak juróom nañu dañoo dox daw ba caserne ba ñaan leen ne leen kalé ngeen ma ngi gis ben goor bu nan dama leena wo ñu nan ma ñu ngi fi ci rond point bi ñu ngi fi ci rond point bi lu mat ay une heure de temps ñu ngi ma ñu ngi ci rond point bi finalement bama ma ba fofu ci ñom lan ma wax ni amuñu auto way way ab policier sax buy dox bu yorul pistolet yorul mënat ken duko faalé so gisé ñuy respecter policier c'est que dafa sol tenue ñuy respecter policier wala gendarme tenue ba tax sapeur pompier bi ni kay wax buy am njariñ da fekk mu yor mu mën wallu nit ñi waaye ay ponk la ngi nii ñu di leen fay salaire weer bu dee bu ne suñu ñàkk ñu jël ko jox leen ko ñu koy fay ko rek tëdd ak seeni deryanke seen yoon nekkul ci kuy làkk seen yoon nekkul ci kuy dee. mais tamit est-ce que faute bi ci ñoom la bu fekkee amuñu ay matériel li ma wax dégguloo ma de dama la ne kee nga xam ne nag mooy seen chef d'état-major moo war a wane yoon wax parce que bu ñu ne soldat bu ñu soldat honneur lañu njëkk wax dignité et honneur. légui dama bëgg xam ndax chef d'état bi mom moko war euh, chef d'état major sapeur pompier mom mo wara jënd matériel bi wala euh, wala état. état du Sénégal mi nga xam ne Macky Sall moko jité mom mo moo leen war jox lepp li nga xam ne mooy matériel pour ñu mëna taxaw askan wi. donc euh, mais mom mi nga xam ne mooy seen chef. boo buñ la joxulee matériel bi buñ la ne yaay yaay chef wala buñ la ne yow yaay entraîneur joxuñu la footballeur yow war a football ak yow da ngay démissionné loolooy gor dafa war a bàyyi taxaw ne askanu Sénégal dan ma wóor ni ma man may général man may chef d'état-major bu sapeur pompier yi man bàyyi naa ndax lañ ma defloo mënuma ko def ndax awma lu ma koy defee ab Sénégal sénégalais danañ ko tàccu danañu jéem a xool ak moom nan lañu mën a trouver moyen parce que dafa am yoo xam ne ci réew mënut a ñàkk lu ñuy wax premier secours dafa bokk jamono jii ñu nekk su ma lay jox exemple bu mel noonu xoolal armée française tout dernièrement seen chef tam major général bu armée bi euh, président Macron dafa ne dafay wàññi budget bi mu leen war a jox waa ji ne budget bi dafay wàññi wala dañ ko war a yokk. ci werante boobu mu ne puisque joxuñu ko moyens yi nga xam ne moo war te moom mu war a jël ay nit yóbbu leen soldat ñu dem ci xeex yi moom bàyyi na lu tax ñun culture boobu mënuñu ko am parce que tey sa sapeur pompier boobu buy bàyyi pompier ñu génne di dem pompier boo amul ndox amul masque gaz amul oto kooku mën a yem kooku bu forcé ne day dugg ci safara génnee fa nit dafay rey boppam rek donc problème maa ngi nii moom du moom moo leen jox matériel mais moom mooy kilifa. bu fekkee ne mom kilifa gi xamna ni mënut a am amul lu mu mëna yoré njabotam njabot njaboot daf ko wara dënk mi da ko ab complice lay doon ci li nga xamne moy dar askanu Sénégal parce que tay ji ci lan lañ tollu fo tourné ci aduna bi ab terrorisme la wax mais imaginer tay ñu nekk ci benn place bo xamne ay yalla na yalla bu mu am ay terroristes ñew tal fa ci ni wala ray fa ay nit yu bari am ay bakkan yo xamne dañuy sentu dañuy xaar

new di dole yoo xam ne mës dara ci ngor gi di dóor dóor dóor dóor waar rek seni alal lepp nek na poussière tay nee nañ la safara bi 4 h du matin la commencer 7 h le pompier ñew pompier yi nee nañ ñëw puis 6 h du matin donc 2 minutes lañ def mais ban caserne moo jege pàkku mbay ba police yi mëna a ba sapeur pompier yi mën a en 2 h de temps xolama yi fenn yu reuy nga jakarlo ak sa askan yo xalat lo sa dé xalaatloo sa bàmmeel xalaatloo sama doom dina ma seetaan xalaatloo ni image yi ñuy bàyyi say sët suba dinañ ko xool nga taxaw nga ne leen ñaari minute lañ def ñu ñëw di jéem a fay safara boo xam ne mënoo ci dara dafa am ay problème yu sérieux man dama jànkonteel ak euh, situation de terrorisme ci Paris attentat yi am par yi yëpp fekkee naa ko gis naa secours yi nu ñu organiser wu attentat yi am ci burkina faso attentat yi am ci bamako suivre na len gis na ni secours yi organisé wu ki nga xamne moy médecin chef médical bu région médicale bu bu bu waga, dafa am seede bo xamne ba légui dafa tax dama ko respecter dama ko jox cër te xawmako ma na ci ben goudi opéré nañu 37 blessés yi nga xamné blessés de guerre lañu c'est-à-dire terroriste bi ay balak yoyu am nañ 37 nit yoo xam ne dañ nekkoon ci diggante dund ak dee ñun opéré nañ leen ci guddi gi donc bu ñu la waxee blessé de guerre <laughs> nekkul jam paaka de parce que blessé de guerre arme de guerre gis nga bu duggee ci nit bal bu duggee ci nit buy génn fu mu génnee mun nga dugal sa loxo foofu sa mun nga def sa kurpeñ ni dugal ko ci pax bi mënuma la mënuma la expliquer nan la ñaawee bu fekkee ne service de secours bu Burkina fexe nañ ci benn goudi ñu gérer loolu man dama leen di wax jëre jëf dama leen tirer chapeau parce que même Paris mi nga xamné ak développement ba fa loolu amé amna nit yo xamné ci mbéd bi lañ leen tëraloon dañ leen opérer dañ amone ay problème mais xolal Sénégal waxuma la hôpitaux yi mais ki nga xamné mo wara jël nit ñi yobul leen ci hôpitaux yi ñu ne koku dafa laaj koku mënut dem ndax amut auto

les forces françaises du Cap Vert mooy manam militaire tubaab yi ñoo ñëw di ñu wàllu loolu dafa war a jeex lu mat juróom fukki ak lu topp nee nañu ñoom moom suñu bopp te moom lu bopp boobu tey ki ñu fal mu nekk suñu njiitum réew gannaaw bi ñu suñu bopp lu judd mu war a symbole mu mandarga bi nga xam wone ni la weesu na waaye tey moomeel bi dafa war a sax waaye damay am gàcce su ma gisee saa su ne yaa ngi wax euh, défilé boo amee dañuy génne ay oto dañuy génnee ay oto yu màgget peinture leen taxaw leen ci mbedd bi xam nga na ma yàlla baal gis nga la gars wax kuy tànn jabar boo ko boo ko seetee jouru tabaski ak jouru ngénte ku fa dem seet fa ku rafet nga ne kii laa bëgg nga tànn ko jabar dinga nga juum parce que tabaski ñëpp ay rafet. jigen ñi rëpp ay rafet tabaski gis nga 4 avril ñom ñep ay jambar lañ auto yu bes tak lañ ñi am mais bu ñu taxawee fële boobu wane nañ leen profi pak lambay auto dañ leen doon pousse pour mu tak donc lolu problème la dañ ci wara sa sëggaat ñu xol parce que askan wi duñu ay xar ay doomu adam lañu Sénégal modi rew réew xamné man daf ma yéem xam nga moy lan mësuma gis dëkk boo xam ne dee jàppewuñu ko muy dara dee jàppewuñu ko muy dara gannaaw bi ñu suulee ñaari junni nit ci benn guddi batalo Joola dama defe ne depuis booba nag sénégalais amul amul problème ak dee parce que mënuma comprendre la dee yépp ca daaka bi ca Medina Gunaas jëliwuñu ci benn leçon mënuma gëm ni veyu tabaski bii ñu paase ñaata nit ñoo dee ci yoon yi amul benn leçon buñ ci tiré amuñu benn genre gouvernement bi ne à part de tel loi numéro tel jël nañ ko loi bi dañ koy tuddee tel accident wala tel nit bi dee ci tel place mënuma comprendre ni gannaaw euh, ñaar fukk ak li ci topp yu yu bittanti kenn mënul jël benn mesure nga xool gannaaw yaa matul sax matul sax weer màggalu tubaab bi juróom fukki nit ak ñeent bakkan ñu root ci ëllëg si terewul ñu am benn décision bu mu jël ci wàllu màggal bi li wu jëm ci sécurité doomi adama yi parce que ba mu bu neen màggal doomu adama yee tax bu doomu adama amuloon màggal du am ma jóge ci màggal boobu parce que yii ma lay wax ni yëpp matul matul weer pàkk lambaay xaw ma keroog la xaw ma ci ëllëg si la mais kéro la nit ñi pak la may def na aljuma la làkk xaw xamu xaw ma mais ci ëlëk si la ñëp nekk ci Bercy ba di fecc rek kenn xalaatu ñooñu donc dëkk bo xamne bu doon rey du téré nit ñi ñu gënë ñi comme ni koy ñu happy pour man dëkk bobu dafa am problème dafa am problème dañu wara tok jakarlo ñu waxtaan suñu biir parce que doomu adama dafa wara nek au cœur de tout doomu adama dañ ko wara magal doomu aadama kenn warut a xotti ormaam doomu aadama kenn warut bu doomu aadama deewee ñëpp dañoo war a dañoo war am tiis ak naqar ndax kenn la ko bokkoon si ñun te dootul dallu siwaat mais kenn kooku bu fekkee ne ñun suñuy suñuy comportement suñuy acte suñuy ñàkk yëg mu indi loolu dañu war a wan a toog xool nan nañu ñuy def ba lii du amati. te Sénégal dana am problème boobu. doy na waar dañuy jeexalee ci ki nga xamante ne moo di ministre de sports di Matar Ba dafa génne benn annonce di xam xamle ne kii di waa l'équipe montier dañoo waa l'équipe montier bu Romaye dañoo nax ñi nga xamante ne ñoo di njiitu fédération bi. dem sax ba di leen ñaax ngir ñu gën a vigilant ci aveniru football bi naka nga ko gisee. waaw xam nga tey moom Angèle dafa di bësum naqar rek yow yi nga ma fi wax yëpp. luy dagg sama xol la euh amad euh num tuddu Maktar Ba man dama defe koku war ta wax parce que nit ngi ni bi ñuy signé contrat bob ak romay man majel jël sama téléphone man Babacar Touré ma jël sama téléphone mo woo mané ko monsieur le ministre ñi ngeen bëgg signer contrat bi amna lu lëndëm lu ci parce que ñi mënuñu leen dafal li ngeen bëgg mune mom mënu ci dara. parce que la fédération dafa di lo xamné ne nekkul ci momelam ma wo ki di Augustin Senghor ma wax ak mom ma wo euh Sow mi nga xamné moy adjoint ganaw si buñ ñu ma dégluwulee wala ñu may wax wax xamné amul bop amul genn ndax dama am ay information lo xamné dama ko tié la bind article ci octobre wala ci novembre bu daaw 2016 ma ñi ñu dënk pour ñu jox ñu mayo footballu Sénégal ñi mënuñu ko def parce que Roma yi mësut a jox kenn mu solu ku dul équipe u Jamaïque loolu rek la mës jox même équipe club yu Dubaï yu Émirats arabes unis yi mësu see jox benn ma leen ñi baaxunu ñi mënuñu mais le ma le ma gën a metti mooy condition ya Sénégal demee signer contrat ak ñi nga xam ne mooy parce que if bu ñuy delloo ci contexte bi Pima mo don sunu mo ngi don solal Pima ne limu don xaar ci senegal matale wu ko donc dootul jëlati di solal Senegal. mais goulet sunu sunu sunu and ak Pima 2002 la commencé won bo ak legui même bu fekkene Amna am xamne Pima wax nako dina ko defal senegal te difuko bis bi nu yor Pima mo nu ko jox euh, am amna ay mayo ay jeu de mayo yo xamne Pima mo ñu ko joxone ci jamono yi muy collaborer ak senegal ba tey boo demee ci yenn boo demee ci yenn hangar yu stade Léopold Sédar Senghor maillot yaa ngi fa xaw ma nag lu koy doy peut-être dinañ ko sédd si ni mbokk xaw ma lu koy doy mais maillot yaa ngi fa ba léegi. Puma boobu depuis 2014 xamal na ni senegal contrat am jeex na ak Sénégal booba la ki nuy wax Kappa ak Umbro ba ci Adidas ñu jege Sénégal ñu ne ñun dañu bëgg ñu habillé équipe nationale bu Sénégal. parce que bobu ñuy wax équipe nationale Sénégal moy la meilleure équipe africaine ci cotation FIFA moy premier dañu bëgg ngeen jox ñu ñu solal leen dañu bëgg ngeen wax ñu yeen Sénégal lan moy seen soxla xam nga loolu la wax cahier de charge da ngay wax man kuma wara war solal dafa wara jënd daf ma wara jox ay mayo daf ma wara tabaxal stade daf ma wara tabaxal ay bus daf ma wara ainsi de suite da ngay wax li nga soxla ñom ñu wax la ok mën nañ la solal mën nañ la tegal li ci xaliss Kapa dafa ñëw Umbro dafa ñëw. Adidas dafa ñëw Sénégal bañ leen jox cahier de charge yi wax leen lañu soxla parce que ci seen ci seen i bopp ñoom dirigeants yi dañu amul deal bu ñu bëggoon teg waaw deal boobu nag moom lañu mujjee teg ak Romaye bi ma jotee si information bi ba ma ko bindee ba ma leen wax ne dama koy bind ci guddi gi la ñu woo journal Stade créer benn article publié ko ne Romaye. c'est un bon euh, ku il la nous nañu 400 et quelques millions mais 400 et quelques millions pour l'équipe nationale de football n'importe quel joueur lu muy fait ci salaire ci semaines rek ëpp na n'importe quel joueur pour équipe nationale de football Sénégal lu muy fayeeku ci semaine ëpp na loola mais pour nous, loolu mooy li gën parce que l'équipe ci biir waxuñu ko ñu signé signer contrat avec nous. bi ma leen xamale ni dugg naa seen i mbóot am na yu ma am yoo xam ne dinaa ko génne la ñu tourné woo ñooñu muy kappa ak ñeneen def leen ndànk suñu ànd ak roma yi du sori tey su ma doon procureur de la république damay gëstu ci domaine boobu ñoom lan la ñu xamoon ba ne seen ànd ak roma yi du sori ak lan moo tax sax ñu tànn roma yi lan moo tax parce que roma yi indi lu ñu dara ñaari jeu de maillot la ñu jox bu weex bi ak bu verte bi jeex na amul sax. rechange bu xottee ko ñak ngeen équipe nationale du Sénégal jour yi dañuy dañuy football bu nu pare ñu jox ko ñu fóot ko ñu changer ko mu waxuma la it euh, keroog bi ñu demee ci Gabon dañuy daw biir Libreville di wuti ka nga xamné mo ni defal tour ak numéro ci ginaaw parce que Romay defuko donc muy problème bo xamné mënu ñu né ñom xamuñu ko xamoon nañ ko dañu waxul li xew ci biir parce que sens patriotique nga xam ne damay xa damay damay damay xare ndax sama réew loolu ñàkk na waa fédération bi tey jii dama leen di jox scoop ndax mënuñu rëcc dafa mel ni dañ leen piégé tey Angèle man maa la wax tey Sénégal équipe nationale bu Sénégal ñaar ñoo koy solal tey gis nga xam nga ne nañ bàyyi nañu romaay bu leen bu nu solulee maillot Kappa bu nu solulee ci Kappa bu leen solulee ëmburoo euh, euh, moo leen di solal parce que ñaar ñi benn nit benn lañu parce que dañu waxtaanoon ak ñoom ba ñu d'accord dañ leen koy jox ñu xëy teggi leen jox ko Roma te bu ñu jógee ci Roma yi ñu lañ ko jox duñ ko jox keneen alors que am ñu ay grand équipementier yoo xam ne tey Sénégal na leen intéressé lu mel ni Nike lu mel ni Adidas lu mel ni ñeneen ñi ma xamut mais duñ ko jox parce que dañu déggoo ak ñële ba pare. prochaine coupe du monde bu Sénégal di football mayo mayo Umbro lay sol wala Kappa ñemewuñu ci génn. kooku man maa la ko wax tey bind ko muy téere d'accord day fekk jëf wees lii lañ fi indi woon tey ci ay xibaar yu rose woon ci jamono yi nii ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la jox digg daje ay yeneen bés incha allah. jaajëf jërëjëf.